ayca mbokk yeeg xarit yi moo du booy ñëw del tàggoo waay <laughs> ñu ngi leen di nuyu di leen ziar te leen di ñanal nag jàmm ju sax dàkk di ko ñanal mboolem internet rek yu ñuy suivre euh, ñi nekk ci biir réew meek bi ci réew di ñu bàyyi xel saay su nekk rek ci l' émission des émissions altine bu jot. Euh, ñu daal di euh, ñaanal nag sëriñ Sidi mu sëriñ Abdou Lahat Mbacke yàlla suñu borom yàggal ko fi lool mu ànd ak weer defal ko jàmm defal ko njabootam wis ko si biir këram te koy ñaanal mbooleem xaalif yi ci biir réew mi yëpp di wax yee ngi nii toog euh, daal di fas yéene comme niñ koy defee rek saay su nekk.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 macha allah mi ngi noonu Aïcha l'émission des émissions door na euh, Modou Diouf euh, tey nag daañu waxtaanee ki nga xamante ne ni moo di euh, artiste boobu di Mame Goor Diazaka ñu nemmeeku ko nag ne daana wax ci wàllum politique ci biir Sénégal tey nag li mu yëkkati rek mooy nee na nguur gi dañ ko daal di war a jël rek daal di koy jébbal ñi nga xamante ne ni ñoo di armée bi su ko defee ñu gérer waat ko ba yi jub. ak ministre yi nga xamante ne ni dañu nekk ci gouvernement bi jot na bu wàccee ñu daal di leen di saytu ndaxte xaalis yi nga xamante ne nii jot nañ ko fi jël war na ñu daal di koy leeral ñu noppi ca ànd ak Aïssatou Diop Fall moom mi nga xamante ne ni euh, temps yi yëpp daanaka mooy def buzz ci réseau yi ndax euh, benn enregistrement bu ñu wax ne dafa fuite mu doon sëkk ci appel bi kii di Farba Ngom waaye nag ginnaaw bi coow li bare génn na moom daal di ci indi ay leeralam solo ni mu ko gisee jeexale ak chroniqueur yi nga xamante ne ni temps yi dañu nekk ci télé yi di wax. de manière bu nga xamante ne ni dafay mel ni dañuy daal di bëgg dàq rek ne élection warta mën a nekk ci jamono jile léegi léegi ñu yaatal li ni mel la ànd ceeg Sanjogu Meng ñu dooree ko nag ak ki nga xamante ne ni moo di Mame Goor Diazaka kàddu yi mu yëkkati ñu dem déglu ko tëddal si. avril ñu nekk fi du dof doflu ku nekk naan fii la kaña gi jaar muus bi traversé nii ni ñu jël affaire bi jox ko armée ñu gérer dëkk bi réglé waat nit ji parti politique yi ñu régulier waat ko sàcc yi nga xam ne ñoo nekkoon ci nguur gi sàcc xaalisu nguur gi ba pare dem nekki ay jàkkaar jàkkaarloo waat ak Macky Sall jël xaalis ba ñu sàcc di ko lewal pour bu beneen président ñëwee ñoom ñu mën a rëcc kenn rëcc ci ñoom ñëpp ay ministre la ñu nekk fii ci nguuru Macky Sall dëgg la comprendre la Macky Sall jox leen ay post de responsabilité ñu yor ay direction am ay milliards xëy suba teel démissionné bàyyi nguur gi te ay juróom benn weer ci ginnaaw fii lañ taxawoon naan Macky Sall na dem na na na na nekk candidat Mame Boye Diao waxul fii nii Macky Sall na nekk candidat. waaw nit ku gëmul Macky Sall génnal salle bi. si biir tey jii moom moom mooy taxaw bi wax naan. ànd ak opposition bi. waaw tey moom moom mooy taxaw non c'est que il faut ñu xam lan lañ bëgg. on peut pas vouloir une chose et son contraire. nit ki su fekkee ni da nekk si dëkk dañu waxante dëgg yow da nga nekk ci benn pouvoir pendant douze ans tu es comptable tu comptable. nañu waxante dëgg mais yow nga nekk ci benn nguur pendant douze ans ba mu des juróom benn weer nga démissionné xëy suba teel jàkkaarloo nguur googu yow bu marché amee su marché amee oto yi ngay gaare pour ànd ak booy marché oto bu nekk ay quatre-vingts lay jar booy man du ma benn booy mu taal oto kenn mais booy dañuy génn di yàq nit boo xam ne otoom trois millions la ko jëndee nit boo xam ne ci nguur gi la nekkoon bàyyi nguur gi ñëw ñëw c'est que dafa am lu bëri loo xam dañ ko war a fóot ci dëkk bi te loolu man dama jàpp ne armée rek moo ko mën a def. d'accord merci. dégg nga maam góor Diazaka kàddu yu mu yëkkati nee na fi mu toll nii nag pour réew mi teguwaat ci ay raay il faut armée bi euh, daal di jël nguur bi lijjanti jafe-jafe yi nga xamante ne dégg nga ko mu lim ko yëpp ci ay sàcc alal yoo xamante ne ni ci nguur gi euh, gaa yi ko sàcc ci nguur gi la ñu nekkoon ba pare tourné waat jàkkaarloo ki nga xamante ne ni moom lañ doon àndal. démb di xeex moom. waaw macha allah xam nga <clears throat> maam góor moom euh, boo ko dégloo mu wax rek coow lee ëpp euh, njariñ wax ji hmm. parce que boo seetee wax ji euh, maanaam du maanaam duy faral di wax wax joo xamante bi ju amal njariñ réew la maanaam wax ju ko amal njariñ njariñu boppam rek lay daal di xool manaam lépp saa yu jógee bay wax rek. li muy wax peut-être ay intérêt menacé wu na am na lu mu yaakaar ni mën naa demee ni wala mën naa demee ne mu yëg lu dal ci ñii sànni ñii xeer euh, pour jéem a ubbi ay bunt parce que am na bunt yoo xam xamante ni pour ubbi ko euh, faaw nga sànni xeer ñenn ñi mën na wax ne bu ma ci boole naa ko woo négocier wax ak moom ak et cetera façon yu mel noonu day daal day am euh, boo ko déggee bërki Dembo Ndiaye rek taxaw na fi wax fi armée bi wax joo xam ni wax ju ñaaw ba sénégalais yëpp doon ko ñaawlu. taxaw fi wax ne armée tey ji armée boobu la bëgg a ñëw di képp moo fi taxaw taxawoon wax ne armée bi amul njariñ moo ko fi taxawoon ne nekkee fi dara lu dut lii ak rus naa jaaraat ci kàddu yi nga xam ne jëmale woon na ko ci ñi nga xam ne ñooy soldaar yooyu euh, tey mu bëgg a taxaw ne nañ jox armée kay diggante bi lan moo fi soppeeku ba tax maanaam gis na ni nguur gi rëcc na fi nga xam ni fa la doon sentir à l'aise nekkatu fa dafa fay jóge mu ne nag ginnaaw mi ngi fay jógee nag na lépp yàqu armée jël mbir mi maanaam noonu rek la maanaam fi mu jëm la bëggut nguur gi jëm fa parce que jàpp na ni lii fi ne def fi daal di jóge mu ne balaa fi lii di jóge nag naa wéeru ci armée euh, yow kay ñii ñi ngi dem élection am na ñoo xamante ni bii ñu ngi ñëw bu ñëwee ay civil la ñu doon mën nañoo rek régler réew mi léegi yow iñaane nga ko ñooñu nga ne léegi na ko armée jël léegi loo fi indee armée ci diggante bi donc nañ ñaanal réew mi jàmm ko ah, mais nee na parce que sàcc gi. non gi daa bëri waaw mais sàcc gi bu fekkee ne ñii rek xam nga sàcc gi daa bëri attention defal attention de gis nga ko boo dégloo communication bi mu def communication bu dangereux la déglul bu baax ni mu communiqué dafa wax fële sànni mooy wax joo xam ni loolu je fu maanaam képp ku ko ci plante it mun ne la tudd ma sa tur bi muy tudd Mame Boye Diao foofu waxatut kii comprendre nga nekkul ni directement moom la. accusé ne lii la mm. parce que bu ko defee ñu yóbbu ko ci yoon xam na bu baax li nga xam ne noonu lay def moo tax mu moytu waxeewut noonu dafa maasale ñëpp ne am na ay ministre yoo xam ni nekkee fi woon lu dul sàcc comprendre mu wëlbati ko waat xam Mame Boye Diao bon ministre mm. voilà comprendre nga ko tuddee bu nekkutoon moom bu nekkutoon ministre moo tax tudd ko maanaam ministre yooyu muy wax tudd ci kenn wala déedéet. Hmm. tudd leen <laughs> la ñëw tudd kii maanaam système de communication la boo xamante ne bi maanaam fi mu toll nii daal euh, lii mooy lii wolof di wax ne mbaam bu naanee ci kii ne nan yàlla na sakk. maanaam moom daal gundaan daat nañ ba fi mu toll nii affaire yaa ngay bëgg a rëcc léegi nag yéenee wuñu ko civil yi ñu ñëw. gañe ñu jox leen nguur gi comme Abdoulaye Wade bi mu gañee bi ñu ko gañee mu jël nguur gi jox président Macky Sall loolu lañ yéene wut léegi ñu ne nag léegi sax na ko armée bi jël sax moo leen gënal ñun ñëpp ñu perte. ñoom est que xam nañ bi jël nguur. non maam góor xam nga dafa xamul mbirum armée parce que bi mu toogee rek di wax naan armee bi nekkeewuñ ci lu dul kii moo lay wax ne moom mbirum armée xamu ci dara. maam góor vraiment nit la koo xamante ni kii daal euh, bu ma la ko doon càmbaral. Mm. Euh, nit la koo xamante ni dafa nekk ci réew moo xamante ni bi réew mi doxut ci ay ordre moom désordre boobu intérêt arrangé ko quoi. maanaam xam nga réew parensaay désordre day nekk ci ñenn ñi ordre maanaam bu ñu bëggee wax ne réew maa ngi bëgg a jëm ci yoonu kii yeneen gis-gis a ngi am parce que gis-gis am gis nga fi réew mi jëm bu fekkente ne bi yàlla dogal na euh, nekkoo koo xamante ni kii da ngay liggéey normalement pour gagner sa vie honnêtement boo defu ndànk boo daan làqar ci ngir du dund rek boo defu ndànk bunt yooyu day fat parce que fi réew mi jëm te fi sénégalais yëpp bëgg réew mi jëm fa mooy réew moo xamante ni bi li fiy ne maanaam nit ñi dañuy liggéey ngir jot ci mais maanaam du nekk rek ne ay lijjantee ki làqar ci dem ci ministre sàngam dem ci kii sàngam comprendre pour mën a am lenn wala dem ci directeur société sàngam ak yooyu comme pour mën a am lenn façon boobu daf fi jóge parce que façon boobu baaxul hmm. façon boobu moo tardé réew mi façon boobu moo tax nit ñi di dem ci plateau yi di waxal ay nit façon boobu mu moo indi ay blocage yu baree baree baree bari ci réew hmm. nag di ma maaka bon parensaay fi ñu jëm ni retrouver woo ci xamoo fooy ban tànk nga fay taxawee mm-hmm. xamoo noo fay doxalee da koy ragal looloo tax soppi système bi mm. nit ñu bari ragal ko waaw parce que tey jii euh, comme ñun ñi ñu ngi taxaw di wax na système bi soppeeku na système bi soppeeku euh, mais système bi bu soppi ko dana am yeneen yu bari yoo xamante ni day soppi am na lu bari loo xamante ni bi il faut prévoir xam ni àddina nag noonu la war a doxee parce que balaa muy neex neex naqari waaw te tamit bu ñu bëggee réew mi euh, yegg fi nga xamante ni fii tey foofu lañ bëgg mu yegg fa faaw ñu muñ yenn yi faaw ñëpp def ay sacrifice mm-hmm. donc nag ñoom nag pare wuñ pour def ay sacrifice moo tax fi mu toll nii tey jii bu ñëwoon armée bi ñu jël na nguur gi nga xam ne armée bi bu ñëw bu ñëwoon tey armée bi jël na nguur gi moom comme ni mu ko waxee nii nañ jox armée bi nguur gi bu ñu joxoon armée bi nguur gi dañuy profité rangé wu ci derrière généraux yi di tagg ci kii ci maanaam mën nañ ñoo indil sax yeneen problème yoo xamante bi problème yu garaaw lay di gën a doon comprendre nga parce que loolu baaxut mm-hmm. te defe naa ne bon suñu armée bi armée bu républicain la bon nekkuñu ci yooyu donc nañu bàyyi élection yaa ngi am kañ moom kañ na dem wut daal la ci élection yi dem voté ji du dëgg na dem voté ji na dem xool keneen koo xam ne ki ñi fi nekk bari nañ mm-hmm. donc mu dem choisir ne diw laay choisir diw laay àndal dix-neuf nga bëgg léegi ñooñu ñëpp nga ne wóolu wala nag nañ jox armée bi ki donc yow ci sa jëm bopp est-ce que kon sava euh, donc il faut que nit ñi tamit <laughs> réfléchir euh, tout réfléchir tout cas <laughs> yenn yi yëfi caaxaan la waaw xel de réflexion lay laaj dëgg mi ngi noonu jërëjëf nga ñu daal di dem nag ci ki nga xamante ne nii euh, Aïssatou Diop Fall dañu jékki-jékki rek gis benn enregistrement Euh, bu doxoo nag moom ci diggante ak far ba Ngom ngir appel bi ñu doon waxante sénégalais yëpp ñaawlu ko nag moom nag euh, bi mu génnee am na ay kàddu yu mu yëkkati ñu déglu ko te dellu si. ñoo tey Aïssa Diop ak Farba Ngom dañoo jutalante ñoo tey xanaa wax ji jeex na ñoo tey man ak Farba Ngom dañuy jutalante ñoo tey léegi boobu wax kon waxu jutal bi jeex na foofu dama fa leeral kenn lenn ñu est-ce que man ak Farba Ngom ñaataat yu melante nañu. loolu képp question la point d'interrogation maa ngi bàyyi kaakat yi ñu toog di lijjanti lijjanti suñu kaama nag farba nañu lijjanti suñu kaama nag farba waaw loolu nag man koo dama ko bàyyi kaakat yi ñoo tey daal ñoo tey léegi bay na ayca mi ngi noonu nee na dina bàyyi kaakat yi lijjanti problème bi alaaji kàddu gi nag bi ñu ko njëkkee dégg daanaka sénégalais yu bëri dañu ñaawlu li ni mel waaye moom nag dafa mel ni daf koo jël à la légère quoi ne du dara sekk nañ ko et bi ñu xamante yàgg na euh, wax ji mu wax ne moom la wax sax man mii sa rus naa koo waxaat mu nekk lu lu lu doy waar. Hmm, waaw jëlu ko à la lettre de euh, kàddu yi dérangé na ko trop boo ko suivre rek xam ni kàddu yi jaxase na ko. Hmm. Hmm. Euh, façon bi muy defee ndeysaan boo ko suivre rek da ngay gis ni affaire bi laal na ko. léegi nag li doy waar mooy mbir mi laal la ba pare nga génn di mel ni comme si eh, dara safu la maanaam finalement da ngay nekk koo xamante ni ki da ngay waye di ci pénc mi quoi parce que boo dégloo ni mu lii mu wax nii rek waru koo waxaat te dégg nga ko ni mu koy waxee c'est pour wane ni mën naa wax lu gën a garaaw lii mais eh, day gën a ridicule rek rafetul ko am muy euh, muy wax wax wax yi xam nga gis nga àddina euh, nit dafa war a def très attention xam nga audio bi bi mu ñëwee dañu ñun teguñu sax audio bi parce que dañ ne bon am na yoo xamante ne bi daal euh, jaru ko nga koy teg parce que am na loo xamante ne bi kiiwul quoi mm. mais di mamaaka moom mu tontu ci euh, dem di wane yëf yi loolu mooy problème bi parce que moom Aysatu euh, jàpp naa ni euh, war na xoolaat bu baax a baax parce que gis nga nit donte far ba wax na wax joo xamante ni bi rafetul mais da ngay xool wax ji fi mu démarré. Mm-hmm. moom yan kàddu la yëkkati. ay saaga mu ko yëkkati yaay sowaas yaay lii yaay lii. te bi mu koy wax mi ngi nekk ci biiri nit maanaam même bu ñu écarté li génn fiite ci euh, ci internet bi man mën naa séq ak yow dara du dëgg mm-hmm. mais loo xam ni ñaari nit ñoo ko séq mais ma toog ci public dafa la haut comprendre ko non seulement def la haut ba noppi di la wax naan la saay-saay nga wuyu nga yaay wuyu yaa ngi de mm-hmm. ñi ma toogal di dégg di yow laay waxal parce que bi muy wuyu mi ngi ne baa may woo pour montrer nit ñi xool leenu kii ni ma ko yabe ni may wax ak moom mm-hmm. comprendre nga. maanaam supposons léegi Farba waxutoon dara nit ñëpp dañ naan mais. Farba xëy moom dégg ko li muy wax Farba dégg nga wax ci mu koy wax. ba mii kii comprendre mais le fait far ba wax wax jooju moo tax mbir mi dellu ci moom mais te yow yaa doon def li nga xamante ni bii yaa def nit ki haut wane ni diwa may ba noppi di ko wax wax joo xamante ni bii yaay sowaas wax yu garaaw la ko doon ay mots yoo xamante ni bii tey moom moo indi moom moo indi sax waa ji boo defu ndànk sax li mu la wax noonu boo waxoon ak moom ci ton bu sérieux sax peut-être euh, wax jooju du ñëw mais le fait que wax jooju ñëw c'est parce que euh, pour moom peut-être yéen ñaar rek a nekk yow moom rek ngay waxal amul keneen koo xam ne mi ngi ci alentour bi et cetera comprendre looloo tax mu daa dee lay tonton noonu léegi nag nga génn nga ne dama bëgg a fay lakk gi maanaam moom dafa mel ni ku ñëw ngir fay lakk yor siwo essence ñëw sotti ko ci taal bi na da koy fay maanaam li mu def nii moo permettre nit ñi di jox xam nga fi mu doon tey bu ceekoon ne waxu ci tey duñ ci wax sax parce que danga naan soxlawu ko waaw ah, parce que nit ku ne am nga sa vie kii donte am na yoo xamante ni boo ko mais boo demaatee ba ñëw nag euh, di wax nit ñi ne naqariwu ma maanaam wax ji ku mu naqariwut doo nit waaw mm-hmm. ah, parce que nit euh, dafa am maanaam dafa am loo xamante ni bi bu fekkee ne bi dal na ci yow li tax nga xam ni yow nit nga mooy da ngay nangu ni juum nga moom li mu waroon a kii rek mooy excusé wu sénégalais yëpp daal di expliquer téléphone am bu fekkee ne mu ngi ciy wax daal di excusé wu sénégalais yi jéggalu leen ci li nga xamante ni wax jooju jàll parce que ay xale yëpp dañ ci yem ci ay kii ak affaire yooyu mais moom mu ñëw gën a continuer di wax wax yooyu vraiment. Euh, am na lu dañ ci moom loo xam ne dootul dellusi. farba nag wax moom. non ma dara lu ma ko waxaam ah, parce que nit la koo xam ni mi ngi doon wootanteeg nit pour moom ki muy waxal euh, en privé la pour moom ki muy waxal moom lay waxal directement moom génnewu ko te wax ji bu kii defutoon li mu def du génn. yaa ngi def live yaa ngi def kii yaa ngi. yor sa téléphone mag mag waaw xam nga mag ñi mënu mënumaa lijjanti mag boo xamante ni bii xam nga tamit mag ñi li ñuy li def yëpp mënuma koo lijjanti. yaa ngi dégg nit ñaa ngi def lépp lu garaaw lu gën a garaaw mais ci sutura maanaam moom jàppoon na ni li muy def mu ngi ci sutura jàppoon na ni wax yooyu garaawut mi ngi ci ki muy waxal euh, responsable na comme moom jàppoon na ni amul kii. mais gis nga fi leen suñu borom weere donc nag weer gii nag ñoom dañoo war a xam ni lii leen dal nii li ñu war a def mooy noppi xam nga moom noppi na ba mën na gën déggoo ko mu wax ci. mais kii di génn di expliquer moom génnam bii di expliquer baaxut ci moom. baaxut man su ma doon moom wala ma nekkoon mbokkam dinaa ne ko euh, bul génn. bul expliquer bul ci expliquer dara bàyyil noonu continuer def say émission tranquille bu boobaa nit ñi dinañ la provoquer benn fan ñaari fan après dañuy bàyyi ah dañuy oublie mais bon boo génnee wax rek ubbi nga débat waaw parce que bi mu génnee wax boo seetee vidéo yu bari nit ñu bari ci lañ ko tontu ci lañ commencé di ko wax ne ko mënoo ñoo nax mm. parce que tamit boo bëggee wax ne yaa ngi bëgg a nax nit ñi te yow bu la nit ñi seetaanee rek xam nga ay. naan leen euh, di wax naan leen ay mbëlle. xam nga parfois kersa mën na la dab ba nga réagir noo xamante ne nii sax <laughs> ah, mais xam nga fi mu toll nii lii dina ko non seulement dina ko def te du moom kese xam nga nit du yow kese. wallaahi peut am na loo xam ne da lay naqari. naqari sa yow la mais rawatina nga am jëkkër. am doom bu dee sa jëkkër naqari ko sa jëkkër dafa am ay mbokk. dafa am ay yaay papa ay ay yeneen i mbokk dafa danga am ay goro danga nga am ay njëkke da am ñeneen. ñoo xamante ni bi boo bëggee taxaw wax nit ñi ne mbir mi safuma da ngay nax sa bopp saf na ko mm. donc nag bañoon a génnaat di wax moo gënoon lu muy expliquer nga expliquer ko say jege ñaale nga noppi ci mbir moom mais boo gënee génn nii pour wax gën a weer sa bopp am na fi mu toll nii tey am na loo xamante ni bi rafetul et puis tamit nga am doom lii day des ci internet yi mm. am na yoo xamante ni bii xas na ba am juumte am na bu juumte amee bon. arrêté quoi nangul ni juum nga comprendre nga. Mm. mais am na loo xamante ni boo ko bëggee def defe ni boo defee plateau def nii fay nga coow li naan lii jeex na mbir mi du <laughs> mën nga ko tàmbali mais du yaa koy jeexal. Mm. xam nga nee na affaire kii bi léegi jeex na kii boobu moom léegi pare nañ du moom moo koy jeexal parce que bi mu nee jeex na ci la am na ñoo xam ne bi ci la ñuy soog a tàmbali te loolu yow yaa ko donc loolu mooy wax ji. en tout cas daal nee na wàcc na ko kaakat yi kaakat yi nag dinañ ko gérer yal nañu yàlla suñu borom bi dolli sutura rek euh, defal ñu ko defal ko mboolem jullit ndax nit moom matul mais parfois comme li nga wax rek soo defee dara ba pare xam ne yow mi juum na da ngay nangu ne juum nga moo lay noppal noppal sa njaboot. ñu jeexalee ko nag ak euh, ñëpp xam nañ ni nag ñu ngi ci wàccaay yi jamono ji ngir rek élection yi ñu fas yéene la vingt 24 mars bi ñu jëm campagne bi door démb waaye nag euh, dañu seetlu depuis quelque temps yenn chroniqueurs yi nekk ci média yi dañuy wax euh, selon ñoom seen gis-gis que ni élection yi situation bi fi mu toll nii bëgg fexe daal di wane ni jàmm ji war a tax élection mën fi am ak gaawte bi mu gaaw nee nañ élection kenn waru ko parax-paraxee ji gars yi daal ku nekk ak sa version bi ngay indi par rapport ak euh, élection yi ñu dëgmal daal dafa mel ni mbir mi gënalu leen waa xam nga ñoom amuñu lu leen di gënal duñu daal ñuy vote ji lañ comme yow di man euh, ak ñun ñuy voté ji lañ yoruñu organisation élection xamuñu ni organisation élection di demee ñoom ñi ñëpp dañuy toog rek di joxe seen xalaat ak wax xamuñu yëf yi naka lay demee parce que dañuy ñoom defuñu rek lu dul bés ba jot ñu gis am yàgg nañu am temps di tardé kon problème wu lii manqué na wala lële manqué na dañ daan am jot gu mat sëkk yëf yi manqué yëf yi manqué nag loolu te diggante bii nga xam ne tànn nañ ministre de l'intérieur mu war a organiser élection yi jàpp naa ni man damay wax ni Sénégal saa yu amee temps day tardé Sénégalais bi amul temps moo du tardé maanaam saa yu jàppee ni tardé na du tardé mais saa yu jàppee ni am na temps du tardé day tardé loolu moom lay constat bi nga xamante ni man def naa ko ci Sénégal ma jigéen tey boo doon dem tel bërëb ñu ne la ñëw fa quatorze heures fekk yaa ngi toog sa kër onze heures mën ngaa taar mais à quatorze heures laa war dem na heure bi jotagul heure bi jotagul da ngay bàyyi ba mu xat même sax ñiy vote ji boo seetee Sénégal benn problème la ñu am dernière minute la ñuy ñëw ne bureau de vote yi ñëw di buuxante am na ñoo xam ne defuñu woon dara waaye ñi ngi tëdd di tegal daan naan heure bi jotagul heure bi jotagul kon mbir mi même boo leen joxoon un an mën nañoo tardé léegi nag li ci am mooy situation exceptionnelle nga xamante ni bi yëf yi dafa kii ñu jox ko ministre ñoom ñu farlu ci xam ni amuñu temps nga xamante ni bi lañ daan tëdd ak a récupérer loolu la ñuy jóg dem def yi li ñu war a def loolu yëpp mën na ne kon boog côté boobu nañ ñu ci dimbali chroniqueur nag man je ne sais xam nga jamono ji ñu toll nii réew mi mhm. euh, moo nekk ci taabal ji àddina bi yëpp di ko xool mhm. nan la ñuy doxalee ci situation bii ñu nekk nii mhm. parce que dañu jàppoon dat ñu ne dat bii ñu jàpp kat tuxal nañ ko àddina bi yëpp di teg plateau télé boo dem ñu teg Sénégal ci pénc mi di ko càmbar naan réew moo xam ne réew démocratie la woon réew moo xam ne exemple la woon ci l'Afrique de l'Ouest réew moo xamante ni bi modèle la ak dal gi nga xam ni moo fa amoon nan la fa lu mel nii mënee am loolu tax li président Macky tabaxoon ci crédibilité moom jëmmi boppam nërmeelu ci kawam parce que amatul kenn koo xamante ni kii léegi ñi ngi koy xoolee comme ñi nga xamante ni bi tey ñoom ñoo doxalee neneen ñi ci seeni réew noo xamante ni waruñu koo doxalee loolu jëkk na ko te man jàpp naa ni loolu jàpp na ko moom man jàpp naa loolu parce que par rapport ak sorteem yi nga xam ni gis naa ko muy génn ak wax mi muy wax jàpp naa ni loolu moom mu tabaxoon te mu xëy daaneel ko yaakaar naa ni bu réer kii arrière oon dootu ko def mais nag leneen am muy lan muy que ni ñu jàppaat date. le date boobu nag léegi nag am ñeneen ñoo xamante ni bii. dañu taxaw ne date bii kat ñu jëm warta ne ñi koy wax mooy ñi bokkut nga xamante ni éliminé nañ leen ci élimination yu njëkk ya léegi nag am ñeneen ñoo xamante ni bi dañuy laxasaale chroniqueur yi genn wàll gi di tappale di ñu ci laxasal naan way il faut que Ousmane sonk dafa war a ñëw ñëpp bokk Karim bokk comprendre nga pour leelee ñu li nga xamante ni mooy Ousmane Sonko comprendre Ousmane Sonko am na candidat ba pare. am na programme am ñi ngi campagne. Mm-hmm. yaa ngi dégg nañ ñu dimbali ci mbir moom jamono jiñ toll ni Sénégal dafa wara dem ay élection ñu voté kii gañe gañe ñu gouverner dëkk bi génn ci situation bii nga xam ne moom la nekk chroniqueur yi nañ ñu dimbali. am na ñu ciy wax ne euh, treize jours mënuñu ci wër ñoom xamuñu mbir mi du ay wër Sénégal kam moox la leen euh, campagne da daan durer vingt jours vingt et un waaw vingt mënoo woon a wër réew bi kenn mësu fee wër réew mi yaa ngi dégg vingt et un jours yooyu amul kenn ku fi mës a wër réew mi yaa ngi dégg say message mi ngi yegg fépp sénégalais yi xam nañ programme ñëpp ku ci ne sa programme xam sénégalais yi pare nañ pour voter ji nañ bàyyi sénégalais yi ñu voter yaa ngi dégg bàyyi seen caaxaan yi ñu nekkee ko parce que jamono ji ñu toll nii vraiment chroniqueurs yi boo leen dégloo euh, man damay toog ba jaay dama naan ñii baadu dañ leen a am sax lu ñu leen di fay pour ñu yàq wala nan la yëf yi demee. parce que dañuy gis lu ne fàng ba noppi te duñ ko wax. dem ñuy wax naan campagne bi saful yàpp. saful yàpp saful xam nga loolu. wax waxi caaxaan campagne bi moom wax dëgg fa yàlla. <laughs> ku bokkul moom mën ngaa xam nga tey am na ñoo xamante ni bokkuñu. waaw ba noppi nag féeteeg ñoo xamante ni bii ñoom la féeteel ba noppi nag bëgg saboté yëf yi yëf yi moom saf na. waaw parce que démb ku seetaan gis ni démb moom yëf yi gaa yaa ngi campagne. gaa yaa ngi campagne ñi ngi wax ak sénégalais yi sénégalais yaa ngi toog di déglu. ba ne candidat sawaruñu ñoom seen jëmmi bopp nekk mais li am solo daal mooy euh, ma jigéen mhm. ñu ngi jëm ci ay élection mhm. nañ ñaan yàlla li PDS di bëgg a def ñu naan xaw ma day def recours fële ca kii mhm. def na ko sax defe naa dem na waaye yàlla bu mu ca am ndam waaw yàlla bu mu ca am ndam Sénégal ñu continuer amal li nga xam ne mooy sunu élection parce que tamit yàpp naa ni sax amul benn juge bu leen di jox ndam ci lii parce que réew mi ci jëm boppam ñoo soxla. Euh, génn ci li ñu nekk quoi parce que situation bi vraiment impasse la boo xam ni yàlla nañ ci génn ak jàmm yëkkatiku fi waaw bu ko defee nga xamante ni bi fañ nekkoon ñu delloo ñu fa nit ñi respecté ñu jox ñu gëdd waaye nekk fi yow lu la réew mi defalut amut teral la teraanga bu ne mais nga commencé bëgg a def yenn yi vraiment rafetul quoi voilà. waaw ñuy joxante dig daje incha allah rabbi euh, ba beneen altine ak jàmm ci kàttanu borom bi. waaw di jéggulu nag altine yi passé yëpp moodu la woon. waaw waaye xam naa ne tey. Eh, euh, dana ko respecté. incha moo taxoon altine yi yëpp dañuy def ba pare. Mm-hmm. ñëwaat mu indi ñu. mardi ñu nekk fi naan altine ngi nii ak loolu xam nga loolu fa la bët mën a yam <laughs> jërëjëf jërëjëf euh, Mbengue xalaat yi am na solo di ñaan rek yàlla suñu borom ma may ñu ñu fekkee euh, tal ba le 24 su ko defee rek ñu mën a jàll ci situation bi ñu nekk te jublu ci leneen euh, tey ñaanal nag euh, sénégalais yi kooru jàmm di baalu àq ñëpp tey baal àq ñëpp di leen jox dig daje nag beneen altine ngeen baal ma ma du Modou Diouf du Top ak Laye Diallo ñu doon gérer ak réaliser bii la émission ba lundi incha allah